suñu mandataire yëpp man mii sama mandataire woo nañ ko pour mu dem DGE dem jëli invitation ma ne ko bul jóge sa kër bul dem tous les autres candidats ont dit du ñu dem jëli benn invitation. bu bëggee nag na dem fële jam ñaajo woo communicateur traditionnel yi na woo équipe bu nawetaan yi na woo ku ko neex mu waxtaan ak ñoom mais nous on ne sera pas avec lui. pendant qu'il nous attendra au palais on sera au conseil constitutionnel lundi à 11h pour déposer une requête. pour wax conseil constitutionnel jël leen seen responsabilité da ngeen ko wax mu jël date dans les meilleurs délais il le refuse yéen jël leen date jàpp leen date wax leen ko le 2 avril il ne sera pas président il faut qu'il parte donc voilà notre plan d'action